war nga daal di roy ci soxna jaara ak maam astu jànqa rek daal di leen roy seen jikko yu baax yooyu nga xamante ne rek ah moom la ñu nekkee woon ci àddina bi waaye bu loolu yëpp weesoo ki nga xamante ne moom laay blâmer rek mooy ki nga xamante ne mooy sonko ndax nee naa la sonko bu fekkee danga nga nekk benn nit boo xamante ne da nga a représenter sa réew am na benn taxawaay rek boo war a taxawaay taxawee ba nga xamante ne nii rek kenn du la tuumaal ndax boo nekkee ci àddina doonoo dara sax danga war di moytu waxatumaak nag ba nga nekkee benn nit boo xamante ne da ñaan yàlla tey réew mi ndax ñun ñi nga xamante ne nii sax ay artistes yu ndaw lañu sax dañuy moytu fi nga xamante ne foofu la ñuy dem ak li nga xamante ne loolu la ñuy def ñun nekkuñu ay nit yoo xamante ne sax ñëpp dañ ñu xam mais am na foo xamante ne duñ fa dem yow boo soxlaa massage war nga mën a woo spécialiste yi nga xamante ne ñoom loolu mooy seen liggéey te ci loolu lañ leen tàggat rek nga daal di leen woo rek ñu ñëw ci seen ci sa biir kër rek nga daal di teg sa ñaari garde corps te nee nga yow booy massé wu doo sumeeku ñu daal di lay garde rek nga def sa massage ci discrètement rek daal di di bàyyi nit ki rek mu daal di dem ñibbi waaye di dem ci sala salon massage bu fekkee yow Sonko yaa def loolu man yow laay blâmer wax dëgg fa yàlla ñu daal di moytu rek di def yenn affaire yi nga xamante ne rek dalay indil jayee joo xam ne du yow ci yow du yem ci yow kese mais day law ba ci ñoo xamante ne seen yoon nekku ci parce que ñi nga xamante ne ñoom lañ ciy gaañ ak ñi nga xamante ne ñoom lañ ciy rey ak ñi nga ne ñoom lañ ciy yàqal àq boobu rek day nekk loo xamante ne yéen a koy gàddu yéen seq mbir mi kon may wax ci sama vidéo ne nit bu fekkee danga nit nekk benn nit buy représenté ci dëkk am na taxawaay boo xamante ne rek moom nga war a taxawee rek ah lu dul di dem ci ay salon massage wala di dem ci yenn milieu yi bañ la fay gis di la tuumaal rafetul te jekkul te jaaduwul ndax ñun ñi nga xamante ne ay artistes yu ndaw la ñuy doog a door sax xam nañ bu baax fan la ñu war a teg suñu tànk ak lan la ñu war a def waxatumaa yow mi nga xamante ne danga ñaan yàlla ah nekk président ré àddina réew mi yëpp daal di lay jox bopp rek ne la yow la kon foofu war nga mën a limiter sa yi fi ngay dem ah ak li nga xamante ne moom ngay wax rek tey moom bu may balaame yow laay balaame ndax dañ ne jigéen xelam dafa gàtt torop te xaalis yàq na réew mi jigéen boo ko fayee xaalis am na jigéen yoo xamante ne xaalis daf leen jiital jaral leen ba nga xamante ne rek dañuy def loo xamante ne day taalum réew te duñ ko xam buñ ko defee ba pare la ñuy toog di ko rëccu ak di rendre compte ne li ñu def nii rafetul mais yow mi nga xamante ne yaa nekk homme public nga war a nekk benn nit bu war a représenter sa dëkk war nga mën a xam fan nga war a teg sa tànk rek lu dul ah dem ci ay salon massage yi nga xamante ne seen réputation ñoom déjà rek dafa yàqu ndax ku nekk liggéey ba ngay liggéey am na loo xamante ne di di am na ñoo xamante ne ñu lu baax lañ ciy def waaye am na ñoo xamante ne ah dañ ciy yàq ndax ñiy gàmmoog ñiy raas dem rek dangay ngay dañu bokkul kon yow laay blâmer yow mi nga xamante ne rek ah waroo dem ci benn salon massage rek ba ñu la fay tuumaal dara yow am nga ci part de responsabilité parce que Sonko ak yow sa tur fi mu yegg ak capacité bi nga am rek ak personnalité bi nga am ak dignité bi nga am yow waroo dem ci benn salon massage bañ la fay tuumaal parce que yow bu fekkee sa ndigg da nga ne day metti war nga mën a woo spécialiste boo xamante ne sax koo xam ne loolu mooy liggéeyam parce que salon massage am na xale yoo xamante ne mënuñu maase dañ leen fa jël teg fan yi mais mënuñu maase du massage mooy seen professionnel ah da ngay jël koo xamante ne ni loolu mooy liggéeyam nga daal di koy jël yóbbu ko sa kër teg sa ñaari garde corps ah ñu lay garde ñu daal lay defal massage rek Sénégal jëm kanam waaye indi fi tuuxi doona goo xamante ne giraawaale goo xamante ne kenn xamul xam nañ fi ñu ko fi mu commencé mais kenn du xam fu muy yem nañu éviter di def yooyu homme public yi ak femme yi nga xamante ne femme yi lañ ñoom laay waxal tey sama video ci loolu la doon wax maa ngi jégalu bu fekkee kàddu yi dafa ñaaw di wax I love you so much di gërëm ñëpp di sant ñëpp di wax ne daal nañu xoolaat bu baax li ñuy def ah. Thank you.